dikkati naa réew mee ko neex turbine yéene kaay nan man xanaa kay weesu neex ndax réewum Sénégal ngay fekk réew moo xam ne ña ko yor daanaka ñoog seenu góor gouvernement muy Amadou Ba mi nga xam ne moo jiite gouvernement bi dañoo démissionné daal di jël seen seeni loxo daal di boole boxoñ janoog askan weeg seeni misère seeni tolox tàngeeg seeni métit jee mënu ko saafara ndax mënuñ ca lenn tey jii ñu taxawaat ne sénégalais yi nga xam ne dañ leen tudd wan leen gannaaw kaay leen sénégalais yi leen ñu nax leen ngeen joxaat ñu réew mi ñu daal di tekki fa yàllaahu turbine yéene nan man du Sénégal inondation fii la samp cukkeelam réew mii ñu ne di Sénégal fii la njëg seere wala Sénégal gi fii la ubbi teg l'école am njàqare daal di juddu yéene kaay bi naan man ndax ca Sigicoor lu toll ci juróom fukki l'école ak ñaar ba nii kenn mënu koo jëfandikoo ndax ndox ak i ñax ak ñaaw téef fii ci banlieue bu Ndakaaru daanaka l'école yu bëri mënuñoo ubbi tey ndax ndox ma fees na fa amunu gaanuwaay ngir wax ci jàngalekat yoo xam ni manqué nañu wax xale yoo xam ne ci réew mi daanaka ci ay tente la nii jàngee ñu ne déeta waay fourniture cher ba daal di jéggi dayoo ren jii ma ne la ubbi teg l'école nga xam ne tey jii lay tàmbali njàng mi du ñoŋ ci réew mi ndax jafe-jafe yoo xam ne mi ngi ci diggante l'école beeg jàngalekat yi ñu ne Sénégal gii ma ni la ñu ko jiite woon jafe-jafe yi nekk fi ñu ñuy seetaan ak moom ñooñee ñoo ne dañuy jiitewaat réew mi moom président Macky Sall ma ne la soobuwaat ci campagne dugal ci ab opération de charme boo xam ne moom daal daanaka mooy jaay Amadou Ba l'observateur naan maan bul sori moom président Macky Sall ma ni la dugal na loxoom ci bile campagne Sall daanaka daan daanaka ma la mi ngi def kéemtalaay kattanam ba tabax ak ndamam tribune yéen kaay naan ko ndamuk Amadou Ba goo xam ne ñi ngi ko teg ci ndoddu sénégalais yi nga xam ne sonn nañ ba maar day taali njëggu seer Sénégal la samp cukkeelam wax naa ko góorgóorlu mi ngi bëgg dee réew mi metti ba jéggi dayoo askan wi di tëñ-tëñi góorgóorlu moom daanaka sukuraat la ne fi mu ne faatu fa yàllaa woo ko dese askan woo xam ne dañ leen bàyyee seen cëggal guy mënuñu ña leen jiite jiyee mënu sax génnee leen ci coono gi ñu nekkee ñu ne Sénégal gii nga xam ne Amadou Ba daanaka moo ko jiite Sénégal gi yàqu yaxeet la ñu ne nañ ko jébbal ci loxo Amadou Ba turbine yéen kaay naan bu dee naxee mbaay tàpp leen lu ñu jóg lee fa yéen kaay naan kon en tout cas bennoo bokk yaakaar moom ñi ngi bëgg jotaat ci réew mi waaye bennoo ci boppam moo nekkub menace ndax na coalition bi daanaka ci lang la nekk gaa yaa ngay fetti loxo président Macky Sall naan kon bul nu laal bul nu jege dañuy jël suñu yoonu bopp cadre nekk ci cell goo xam ne maa day taali allié y ci boppam ñoom it fas yéene gedd fa yàllaaxu vox populi Ngalo Jaawo ma ngay wane ab naqaram ci li nga xam ne nag beddi nañu leen l'observateur naan maan ci délégué yi Sall laalul AFP laalul parti socialiste ba ñu génnee commencé ñaxtu la laalaat carte gi l'info yéene kaay naan kon terewul Benno Bokk Yaakaar atu yàlla sàkk as lëf compeeku ca la ko doon voteel daal di tàbbi géej wala tàbbi ci loxol l'opposition 2012 ba tey nag te loo ci mënti déggit loolee ma nga amoon ci jamonoy président Macky Sall ndax bu dee siiw Sall ko gën a def Amadou Ba bu dee politique dong Sall lam ca am ca xam-xam Amadou Ba amu ko terewul ma ni la at wu yàlla sàkk bu ñu demee élection bennoo di ñàkk ay électeur ñu ne déetawaay Mimi Touré tëb ca bato ba bun jonn ne dematuma Aly Ngouille Ndiaye bàyyi Mame Boye Diao ne leen bàyyi bàyyi yenn ci ay kàngam APR yi ne ciel parti socialiste ak AFP mel ni kuy soobu ci mer ñoom it AFP ci boppam daal di ñàkk Alioune Sarr 24 heures yéen kaay naan man téema laa may ci Alioune Sarr l'info ne ko ma ñëw rek ndax amadu Ba mii ci bilan président ma Sall la nar a jëfandu ngir fas yéene naan yuuruk sénégalais yi ñu woteel ko ndax gaay yi seen gëm-gëm mooy mooy ñetteel bi mandat bu président Macky Sall la lonk Amadou Ba bu ñu demee élection ba Amadou jël ndam la président Macky Sall ne ko gees ne ko Amadou mu ne ko naa mu ne ko jox ma mandat bi sama yëfa dama la ko dénk tribune yéen a kaay naan kon moom ban bilan lan fii campagne réew moo xam ne mi ngi fees dell ki ndox njëkk yi cher lool xale yi amuñu l'école gu ñu jàngee ban bilan l'info kaay ne ko en tout cas Benno Bokk Yaakaar bëñ bu yànq la le mandat yéen a kaay naan kon fekk l'opposition boo xam ne tas na tasar te tas tasar googee loo ci mënti déggit Amadou moom bu defee benn jéego jël réew mi tribune yéene kaay ak l'évidence naan man lay xaar Bougane Gueye Dany ak waa l'opposition bi lenn la tribune naan kon présidentielle 2024 bi benn jéego daal la Bougane Gueye Dany ak l'opposition bi mën a def moom moo di nag daal di boole defub say le soleil yéene kaay ne ko du yomb de téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn mani la doon nan candidat ci réew mi jël fiche parrainage bi te jeexagul tribune yéene kaay naan kon lii sagalul opposition bi te lii taxul opposition bi am ndam opposition bi mani la bu ñu deful ab say leen dal fa yallaaxu ndax Ousmane Sonko ci boppam seggukaay bi leen jël daal di koy segg bien bon te loolee Bougane Gueye Dany ne xel nangu ko ndax Ousmane Sonko juddoo ci dëkk bi du waya waya tekkee ci dëkk bi ñu dàqee ko ci dëkk bi bëgg ko rajee ci fiche électorale bi ci dëkk bi ma ne la lii moo dul yoon Bougane naan dàq nañ Ousmane Sonko ci fichier ñu ne ciel ñu andil nu parrainage boo xam ne andi nay coow te gaa yi ngi wax ne bari na ci fraude ak injustice yoo xam ne am na ci biir parrainage bi ndax loo ci manti déggit sàll mënu koo bañ ab seggukaay la la ay millions yoo xam ne bindu nañ ci fichier électoral bi te daanaka naxee mbaay la sëlëm askan wi sénégalais yi di xaar nag démocratie waaye tam ay élection yu ñu tëgg mu leer ci réewum Sénégal yaakaar goo xam ni boo moytul yankeeku fa yàllaahu lay def ndax nag élection yi loo ci manti dégg càcc gi moom dafa mel ni lu leer ba nuppi bugaan géy dani naan attention opposition bi Walf Quotidien naan attention waa Pastef mbaadu bukki ba matti Benno Bokk Yaakaar mooy yor parti Ousmane Sonko bi L'Enquête Quotidien daal dina déet ñoom kay Pastef dafa mel ni dañoo ubbi seeni gët ba gat sa gat sa ga fee fas yéene tegal ndëgg sërëx président Macky may mun a busoon naan am na jiixi jaaxade ndax Sonko président ak doxalinu Pastef gii ñu gis jamono ji daal am nag waroo moom may mun a busoo ci vox i naan direction générale des élections daanaka dafa bëgg summi mbu bam jàppee boppam conseil constitutionnel léegi nag may mun a busoo naan ay fonctionnaire ñooy jàppee seen bopp nag ay juges électoraux alluntin naan kon conseil constitutionnel nañ ko bàyyi mu doxal ak cëggal guyam loolooy dëgg yéene kaay bi naan man yi mel ni tulleeg màll ci réew mi Anta Baba Babacar Ngom ak caravane arc bi dem ca Mbour capitaine Touré taxawal ab mouvement ne injustice lay xeex ci réew mi Aliou Ndao soobu ci présidentielle bi di attaqué président Macky Sall turbine yéen a kaay naan man docteur ma kumba it di candidat ndaw yi bëgg ko lool ngir expertise am 24 heures yéen a kaay naan man Alioune Sarr it candidat la bëgg ab coppite ci réew moo xam ne dina arrangé sénégalais yi Alioune naan lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci Sénégal gii daanaka am na fi diggante ci géej géeg suuf si suñu jëlee doomu Sénégal yi nekk ci réew meeg bitim réew am yeeg doole yi day Sénégal mën nañ ko ñoŋal ba barsaak barsaak dégg leen ci am wàllu fiscalité locale Alioune naan am naa ci xam-xam mënees na fa jaaree tekkil réew mi la ñuy woowee diggante góorgóorloog borom bralon yi distance boobee day mënees na koo wàññi Alioune ne liggéey réew mi rek moo koy wàññi réew mi ko dijee naan man Abdoul Mbayit candidat la turbine yéen kaay naan man ak lu mën a am bu leen fàtte ni Amadou Ba it mooy candidat président ma Sall te paluk Amadou Ba mën jur lu ne ci réew mi l'évidence yéen dikk day daal dinay mobiliser waa Kédougou képp kuy doomu gox ba Ousmane Sylla mobiliser la ne jëfal président Macky Sall continuité moo ko waral naan militants yeeg sympathisants yi te ñu bokk coalition Benno Bokk Yaakaar nañu boole doole yi ngir jàppale candidat amadu Ba ndax ndamam mooy ndamuk président Macky Sall te daanaka président Macky Sall ndamam mooy ndamuk Sénégal Ousmane naan daanaka amul xalaat de jàppale président Macky Sall ci choix amadu Ba bi mooy dëgg Dakar Times naan man waxtu woo waa France na ngay xoolee nun tàqali kook Emmanuel Macron alliance boo xam ne daanaka déj déjjati Emmanuel Macron moo ko tax a jóg day taxaw na te ña ngay jaar ci ñaar ciy pexe xool nag nees def ba Macron daal di leen di abal France fa yàllaahu l'observateur waxtu waaw di ma xamal ne ca Joal benn soo la ñu daal di jël daal di koy rig ci digg terrain bi terrain bu yaa lool te amul dara yéen kaay bi ne ma ba nu demee ba yër sooba benn ween lañ fekk ñu dagg ko daal di dugal ci biir sooba teg ko ca terrain ba ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm